ñii nga xam ne ñoo ñu jiite la ñu war a sikk ñun ndax ñoo ñàkk patriotisme ñoo ñàkk jiital seen intére réew ba tax ñuy los gombaanu di jaamu soxla ñeneen ba ñoo ñu xam am seen fulla bopp ñoom it suñ ñëwee défendre seen intérêt bopp jël alal gi yëpp delloo ko seen réew bàyyil ñu fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay suñuy set di ko fay lii ma wax nag dinaa ko firndeel ci ñett tudd naa leen léegi train express régional bi ñaareel bi dina doon autoroute bi nga xam ne moo dox diggante Ndakaaru ba Diamniadio ñetteel bi mooy li nga xam ne mooy autoroute Ila Touba TER bi tey boo jëlee financement TER bi français yi gannaaw bi ñu woowee waaje mu ñëw ba France ñu imposer ko ba mu signer contrat pour ñu defar TER bi dañoo jël imposer ko AFD agence française de développement daf ko imposer société bi def étude bi na doon société française moo tax boo xoolee ñoom bi ñu defee étude bi ba pare ak niñ ko de tënkee ba nga xam ne pour ay normes européennes la ñu andi pour écarter chinois yi écarter ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne amoon nañu ay offre ni ñu tënkee étude bi dañ ko def sur mesure pour waa France moo tax soo seetee société yi gagné marché yëpp société française la étude bi nee naa leen Sistra moo ko gagné soo seetee groupement. Euh, bi Eiffage def ak euh, Yapi ñoom it ñoo gañee lu bëri Alstom ñëw ng ñëw ak yeneen ak yeneen lu ëpp quatre-vingts pour cent ci ci ci ci ci marché terre bi ñoom ñoo ko gañe ñu ne deeti ki waay ñoom ñu annoncé Macky Sall bi muy annoncé terre bi yéen ñëpp yéen a ko déglu woon dafa waxoon ñaar yu am solo bu ci njëkk mu ne terre bi cinq cent soixante-huit lay jar ñaareel bi mu ne jox naa Sénégal yëpp rendez-vous le 14 janvier 2019 pour inauguration terre bi ñaar yooyu yëpp benn amu ci tey ñi ma leen tudd ñëpp ci société yi gagné marché yi ndax ñun yor nañu contrat yi ak avenant yi li ci ëpp contrat yi ak avenant yi boo ko dajalee tey terre bi premier phase bi rek nga xam ne 36 kilomètres la diggante Ndakaaru ak Diamniadio mu ngi coûté Sénégalais yi 1029 milliards mille vingt neuf milliards première phase bi dong laa wax ndax ñeen ñëpp xam ngeen ni ñaari phase la woon Dakar jam ñaajoo muy trente six kilomètres jam ñaajoo aéroport Diass mu nar a nekk dix sept kilomètres waaye jam ñaajoo aéroport jas gëm naa ni sax duñ ko def ndax ñaara waral lool bu njëkk mooy du doon lu rentable ndax benn gaar rek lay desservir te boobu jamono nga yóbbu woon Thiès am ñaar wala ñetti gaar moo ëpp solo ñaareel bi mooy Eiffage si boppam bëggu ko. te ñoom lu tubaab yi bëggul duñ ko def ndax Eiffage jàpp na ni bu ñu continuer ba aéroport ba boo moytul rentabilité bi mu waroon am ci autoroute bi dootu ko am donc financement bi li ñu dé waxoon sénégalais yi amul tubaab bi di leen noggatu bi ñu bëggee inaugurer ne forcé ñu inaugurer janvier bi parce que boobu li ci desoon pour ñu dugg ci campagne matul weer fàttaliku leen yéen ñëpp sénégalais dama leen ne woon terre bi pareegul te bu ci Macky Sall ba dugg ci. du daw ak électricité ñu fexe ba defal ko ci carburant su dawee ba jam ñaajo du dellu si ndakaaru ne leen woon nag fii juin terre bi du dox Sénégal loolu histoire wane na ko juin jot na terre tàkkul ñu joxaat novembre 30 novembre novembre passé na ba léegi gisu leen terre gu tàkk mais bi ñu demee ba ne forcé ñu inauguré ko ci mois de janvier boobu tubaab yi dañ leen doon këyitloo naan leen mun nañ leen yokkal nangam ci financement wa waaye nag am nañu suñuy société yu ne foofu dañu leen bind ay impôt il faut ngeen effacer impôt bi lettre baa ngi fii di leen defal chantage yu ndaw yoo xam ne boo ko gisee yow en tant que sénégalais da am gàcce kon ci li ñu wax le woon sénégalais ni terre bi loolu lay jar nee naa la multiplier nañ ko par deux waa mille milliards ñaata hôpitaux la mënoon tabax Sénégal mille milliards autoroute autorail bi jóge Dakar ba Bamako nga xam ne ñaata gaar lay deservir ci yoon bi fu nekk ñu fa daan taxaw marchandise yéeg marchandise wàcc nit ñi yéeg nit ñi wàcc mille milliards ñaata école ak université la mënoon tabax ci Sénégal tey université bi ay chapiteaux lañ fa def mooy ay mbaar même suñu université rek dafa am ay abri provisoire loolu yépp pour neex France nga jël ko dem def ko ci autoroute bi li ñu waxoon ci financement bi amul li ñu waxoon ci délai yi amul ñaareel bi mooy autoroute Dakar ñaajo autoroute boobu ci trois cent cinquante deux milliards yi mu jar Eiffage soixante milliards rek la ci dugal wala soixante et milliards donc su bëree ba bëri dix sept pour cent la si Eiffage dugal la ca des yëpp Sénégal moo ko fay balaa may dee ñu naan déedéet Sénégal nangam la dugal li ci des banque mondiale la ko dugal ak banque africaine développement li nit ñi xamul mooy banque yooyu. dañ lay lebal lañ lay lebal da nga koy fay ak intérêt yi kon loolu yëpp jàpp leen ni yéen sénégal yéen a ko supporté bu dee da ngeen supporté nag euh, quatre pour cent ci autoroute bi Eiffage def ci dix-sept pour cent donc ñu xëy état du Sénégal ne ko yow laa jox autoroute bi yaa koy gérer nu la neexee defal ko li tubaab di wax concession concession mooy yow yaay gérer autoroute bi nu mu la neexee yaay fixé tarif yi nit ñu war a fay lu fa am yow yaay responsable bi jox naa la ko ci 30 ans waaye dégg naa démb am na Sénégal bind article bu am solo ne yokkaat nañ ko sax léegi def nañ ko 40 ans di fixé tarif yu ko neex boo seetee tarif yu Eiffage fixé tey boo jëlee tarif bi gën a ndaw tronçon bi gën a ndaw nga jël tarif bi gën a ndaw bi ñu defee calcul yi ci fukki at dong fukki at dinañu amortir autoroute bi totalement mu amaat nag ñaar fukki at mu ci am ay milliards yi yoo xam ne ci kaw Sénégalais yi di fixer tarif yu ko neex di ko def ni ko neexee te kenn mënu ci dara li ko indi nag mooy lépp loo xam ne dafa jóge ci France lépp li nga xam ne dañ ko imposer makisal Sall ñemewu cee dellu gannaaw waaye li ñu waroon njëkk a def mooy renégocier contrat yooyu ba nga xam ne tey sénégalais warul fay li muy fay tey suy jël autoroute bi ñetteel bi mooy autoroute ilaa Touba autoroute Ila Touba ñoom bi ñu koy def spécialiste yu bëri ne woon nañ leen bu leen def autoroute bi parce que du rentable waaye bëggoon def démagogie politique xamuñu ni waa Touba leen gën a yeewu foofu ñu jël xaalis bu dul jeex def ko ci waaye tey lan lañ ci gis mooy ministre Omar Youm mi nga xam ne moo yor infrastructure temps yële ci mois de juin bi dafa wax ni autoroute bi rentable ndax ñoom bi ñuy def seen calcul taux de rentabilité 14 pour cent la ñu mooy autoroute bi war na mën a génne rentabilité 14 pour cent te lool pour mu am ñu ngi ñu ngi ko tegoon ci bés bu nekk yaakaaroon nañ ni nu mu tuuti tuuti nu mu tuuti tuuti bés bu nekk 15000 auto dina romb ci autoroute bi. trafic bi na mat quinze mille auto moom ci boppam moo wax ci mois de juin bi ni bés bu ne ñu am nañu jafe-jafe yooyu pour pour pour jot six mille auto ci autoroute bi kon xaaj bi sax mënuñu ko am fi mu toll nii loolu nag chinois yi bi ñuy tabax autorite bi dañ koo teel a xam moo tax ñoom dañu ne dañuy tabax rek waaye bugguñoo gérer autoroute bi autoroute boobu boo ko seetee moom ak bii jëm mbuur ak yooyu ñun Sénégal ñoo koy gérer moo tax ñu créer société buy gérer autoroute daal di créer jël benn décret interministériel fixé seen tarif yooyu ñuy fixé dafa am benn règle bu élémentaire ci lépp loo lu jëm ci fayeeku mooy boo amee loo xam ne da nga koo da nga ci war a fayeeku am benn objectif boo fixé ne lii laa ci bëgg a am ñaar moo mun a am soit li ñuy wax assiette bi bëri mooy ñi ñi war a fay bëri bu boobaa nag tarif bi day tuuti mooy li ngay fay kenn ku nekk day tuuti wala assiette bi tuuti mooy ñi ñi nga war a fayee ku bëriwul bu boobaa foo jaar nga def tarif yu kawee kawe pour mun a am li nga bëgg loolu nag moo ñu dal ci autoroute Ila Touba waaye xaalis bi ñu def ci autoroute Ila Touba quatre cent et quelques milliards munoon na régler problème mu assainissement Touba nga xam ne saa su tawee foo dem ma ngay taa munoon na régler problème mu eau potable bi ñuy wax ba ndox mu sell bu ñuy naan biir Touba ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. farata woon ñu regle ko ci kaw lii waaye bëgg rek lu neex parce que chinois yi lay lebal dañ lay lebal pare ne la sama entreprise moo koy def te man maay fay te Chine laa koy fayee directement lii ay findele yu gàtt yu wone li ñuy wax suñu perte de souveraineté mooy li tubaab wax naa ko dem sama émission bi li olof naan ku la abali gët fu mu la joxoñ ngay xool te loolu moo ñu dal li ñu dal nag mooy boo koy jël rek ci misaal muy ci autoroute bi muy ci terre bi muy ci yeneen ak yeneen mooy ab boroom kër goo xam ni amagoo kër goo moomal sa bopp gu dëgër locataire nga sa njaboot léeg-léeg nit feebar mënoo jënd ordonnance ba mënoo yóbbu sa doom école privée parce que amoo loo fayee léeg-léeg suñu añee nga am jafe-jafe jox leen reer waaye nay maa ngi dem banque lebi xaalis bu bëri parce que damaa bëgg am benn kat-kat bu bees tàq loolu moo dal Macky Sall loolu ñu topp tey ci investissement yi nga xam ne du woon priorité. ci jamono jooju am na yoo xam ne farata la woon ci réew mi ni ma ko waxee rek ci yeneen vidéo yi te wax ko ci njëlbeen waxtaan wi bokk na ci paj mi gaa soo seetee ci ni ñu defee classement bi budget paj mi budget santé bi bokk na ci. fukk yi nga xam ne moom la ñu gën a jox doole ci biir budget bi waaye liñ ko jox dafa néew ba tey néew na trop par rapport ak euh, retard bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu paju ci biir réew damay wax ni am réew boo ci nee cëpp ne asalaamaaleykum boo bëggee xam qualité réew ma seetal ndax nit ñaa ngi faju bu baax ak ndax nit ñaa ngi jàng bu baax ndax loolu moo yor ressources humaines te ressources humaines moo yor réew loo mun ti am ci alal te amul ressources humaines de qualité amul njëriñ paj mi nee naa la bokk na ci budget ci fukki budget yi ñu gën a dooleel waaye liñ ko jox néew na boo koy comparer wala boo koy gam-gamle ak yi ñuy def feneen ak feneen ci yeneen réew boo jëlee ci mbirum paj mi Sénégal mu ngi jox budget cent quatre-vingt-onze milliards paj mi budget cent quatre-vingt-onze milliards yooyu day représenté cinq virgule trente-sept pour cent ci suñu budget général waaye boo ko nattee ci PIB bi 1,47 pour cent la ci bi mooy soo xaymaa alal gi ñu am yépp ci réew mi li ñu ne mooy suñu alal gi ñu xayma ci koom lañ ciy jël dugal ko ci paj mi euh, soo jëlee téeméer gu nekk matul ñaar xam nga ni loolu tuuti na ci réew moo xam ne amuñu hôpitaux yu doy dinaa ci dellu si léegi amuñu post de santé yu doy amuñu centre de santé yu doy ci mboobu jamono. boo jëlee ay réew nee nañu comparaison n'est pas waaye nag su dee réew yi nga xam ne tey seen système de santé sax am na performance ñooy continuer di jël li ëpp seen budget def ko ci santé boo jëlee lu mel ni États-Unis 17 pour cent ci budget mu ngi koy jagleel ci santé bi 17 pour cent ci budget boo jëlee lu mel ni France wala Allemagne ñu ngi ci 11 pour cent zone Union européenne bi yépp li ci gën a tuuti ci budget ñu ngi ci 6 pour cent nga natt kook ñun suñu 1,47 pour cent bi ci ñoo xam ne seen paju demul demewul noonu tey soo jëlee fu mel ni Amérique américain bu nekk Amérique mi ngi def 10 mille dollars par année ci sa faju Sénégal mi ngi def vingt 24 dollars ci sénégalais bu ne pour sa faju annuel 24 dollars waa jàpp ngeen ni faju bu baax mën na am ci Sénégal ci anam yu mel noonu néew ma dañuy comparer ñu ñu ëpp doole waaye waroon nañu mën a jël. lu gën a bëri ci suñu budget wàññi li ñu jagleel ay autorail ay TER ak ay autoroute yu demee noonu waaye gën a faratal paju sénégalais yi ba foo dem ci Sénégal fekk fa euh, hôpital de niveau 3 bu am qualité la ñuy def ci TER bi rek mënoon a tabax hôpital de niveau 3 ci 14 régions yépp équipé ak personnel bu baax bu ñu recruter ba benn sénégalais dootul paas jóge Bakel wala Fëngale mi wala Ziguinchor wala parce que amu fa hôpital bu baax ne maa ngi ñëw Ndakaaru te bu ñëwee ndakaaru gis ngeen hôpital principal ak Dantel ak nangam nangam mara day taali tey boo jël ba léegi ci statistiques yi amuñu hôpitaux yu doy boo jëlee ci wàllu euh, hôpital norme OMS yi norme mondiale dafa ne fu ñu am lu mat cent cinquante mille habitants rek waroon nañu ma am benn hôpital de niveau trois pour cent cinquante mille habitants waaye boo ñëwee senegal ñoo ngi am benn hôpital de niveau trois pour quatre cent soixante dix mille habitants donc multiplier ko par quatre kon sore nañu minimum bi nga xam ne moom la ñu war a am pour mun a faj nit ñi boo jëlee centre de santé yi nee nañ la fa mille habitants am rek waroon nañ fa mun a am benn centre de santé Sénégal benn centre de santé la ñu am pour cent soixante mille habitants foofu it mun naa ne da nga koy multiplier par trois gis nga gab bi nu mu bëree boo jëlee ci ñiy faj ñi war a faj nee nañ la. pour su dee lu jëm ci médecin yi médecin généraliste laa wax de norme OMS dafa ne dix mille habitants bu ne war nañu mun a am benn médecin généraliste Sénégal on a un médecin généraliste pour cinquante neuf mille habitants kon sore nañu norme yi. six mille femmes en nage de procréer bu ne six mille femmes yoo xam ne toll nañ fu ñu war a mun a juree doom nee nañ foo ci am six mille waroon nañu am benn sage femme Sénégal ñu ngi am benn sage femme pour dix mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euh, jigéen yu toll foofu lii may joxe yi nag ay statistiques yoo xam ne statistique u ANSD la bu kenn jàpp ni Ousmane Sonko moo koy créé rapport baa ngi fi rapport ANSD 2015 baa ngi fi ay statistiques yu may génne la yoo xam ne yu officiel yu gouvernement sénégalais la est-ce que jàpp leen woon ni yéen sénégalais yi fii moo waroon doon farata bu ñuy orienter dépenses yi lu dul rek ñu topp ay dépenses li tubaab di wax dépense de prestige wala topp lu war a neex tubaab yi wala topp loo xam ne fa la ñu mën a gën a lekkee parce que yéen ñépp xam ngeen ni marché yi day ànd ak surfacturation yu doy waar marché bu waroon jar cent mille lañ koy facture te saa su ne barki dem rapport ARMP génn na firndelar na ko yéen ñépp xam ngeen ni France lim ñu jaayee teer bi bu ko doon tabax France du jar loola waaye fa lañu gën a mën a lekkee moo tax ñu ne budget bi budget naxaate la budget bi méngowul ak priorité Sénégal fi ma commencé laay daanele benn méngowul ak li nga xam ne mooy priorité Sénégal méngowul ak li Macky diglew digga digg digga diggaale woon ak sénégalais yi waaye budget bi dafa firndeel ni ñun amuñu suñu indépendance ci suñuy choix dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci gannaaw duñu dicter suñu choix moo tax chaque fois ma ne sénégalais yi FMI fu mu féliciter Sénégal rek xam ne ni ñu ngi ci guuta xam ne ni jëmuñ ci yoon bu baax ndax réew yu développé wala yu euh, euh, émergé ci euh, fanweeri at yi mujj yëpp boo seetloo dañoo mujjoon a fippu bañ li FMI doon doon leen imposé muy mahatir li mu def fee mu ko def muy malesi muy Lula da Silva li mu def Brésil muy keneen ak keneen ñi mu ñi ñi am yenn progres yi ci at yi mujj yëpp dañoo dem ba gis ni dictat yi nga xam ne moom la ne FMI di imposé dictat yooyu baaxul seen réew ba keroog ba ñu féetarloo lañu ñu commencé teg seen réew ci yoon waaye budget bi li mu wane it ma daaneele foofu mooy séddoo diggante ay acteurs politiques loolu suñu temu démb bi wax euh, dellu si na ci bu baax a baax loolu nañ ko wéyal ëllëg incha allah ndax nañ dellu ci ci tem buy gën a wane suñu ñàkk moom suñu bopp ak nit ñuy noox nootee ak nit ñuy naxee ndax nañu aborder lii nga xam ne mooy bor bi te ñoom bëgguñu ko wax ci bor bi gi seetlu ngeen ni Macky Sall ko wax ci bor bi rek mu mer suba nag nañ ñëw wax leen bor bi la ca ne ak li tax ñu ne boru Sénégal gi jaaduwut ak nit ñuy tënkee ci bor bi gannaaw bu ñu xamee ni tey mën nañoo fayee ko ci suñu pétrole ak suñu gaz ñu ngi leen gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu.